ancien international, mais je vais dire docteur Mohamed Job n'est-ce pas Parce que vous êtes docteur. Et voilà. Alors, euh, docteur en sciences économie, Mohamed, vous avez su allier le sport et les études. Vous avez atteint le haut niveau avec les études, mais vous avez atteint le haut niveau avec le sport. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour en arriver là oui, en fait, je dirais que ce n'est pas une chose euh, pas une chose facile, mais ce n'est pas aussi un miracle. Hein? Parce que le sport, le sport étude, quand même, c'est une vocation. c'est à <laughs> Voilà, voilà, mais, mais, quand même, ce n'est pas un miracle, puisque dans beaucoup de pays, maintenant, ce slogan-là commence à être développé. Très bien. Pour études aux États-Unis, en France, quand même, les gens font pour l'étude NBA. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui, font, qui ont, leur, NBA, leur master, etc. Donc moi, quand, quand j'ai eu mon bac euh, à l'université, je suis venu faire, je, suis faire, j'étais inscrit en première, année euh, euh, de, de sciences économiques et de gestion. Mhm. donc, au, donc au finish, deux ans après, j'ai eu mon doc e en mathématiques appliquées et sciences sociales. Mhm. Et j'ai fait une licence en gestion, une maîtrise en gestion, un DA e en économie et après j'ai fait une, thèse doctorat en sciences économiques et de gestion. Donc c'est entre 2003 et 2013 que j'ai trouvé tout mon cursus donc, sur le plan études universitaires à l'Université Garçon Berger de Saint-Louis. Oui, c'est vrai que ce n'est pas quand même une chose aisée, mais quand même il faut il faut quand même de la méthodologie. C'est faisable. Ah, c'est faisable. C'est faisable. Il faut être, il être organisé. d'accord. Je pense dans tout cela c'est l'organisation. j'ai j'ai eu aussi des parents quand même qui m'ont qui m'ont aidé quand même à pouvoir euh, être dans cet environnement-là, sport et études. J'ai un père universitaire, j'ai une mère enseignante, donc quand même j'ai une famille quand même qui, qui, évolue dans, ce monde, ce, monde-là. Donc, euh, euh, l'essentiel, c'est de pouvoir s'organiser. Dans la vie, quand même, il faut se dire quand même des fois que on a donc en aucun moment, vous n'avez pas senti euh, le sport prendre le dessus sur vos études ah, en fait, ça s'est passé en seconde. J'ai euh, parlé d'une petite histoire avec mon père là. Mhm. Donc quand, j'étais en seconde S, mhm. c'est au moment où j'ai commencé quand euh, réellement à jouer au basket quoi, petite catégorie. la passion, la passion du basket, à un niveau, élevé. Du coup, j'ai commencé à, laisser un peu à rate les des études. Donc, euh, alors au premier semestre, j'ai eu moins de, de, de, 8, je pense, moins de 8, moins de S. Alors, le papa est, venu, il a repris les baskets, il a repris le ballon de basket, tout ça, les équipements, il a tout repris. Il me dit, au second semestre, si tu as moins de 13 ou 14, je te, je tu, reprends. tu reprends le basket, sinon tu arrêtes. Alors, je me suis dit, en ce moment, je me dis que je suis obligé, je, je veux jouer au basket. Donc, euh, je veux jouer au basket, et voilà, la, seule manière de pouvoir jouer au basket, c'est de pouvoir, c'est Apporter de bonnes notes. Apporter de bonnes notes. Donc du coup, euh, je me suis mis à travailler, hein, travailler dur, travailler dur pour avoir moins de 13 pouvoir, remonter um um e quand même la pente. À ce moment-là, comme je suis quand même dans le jeu au basket, parce que je me cachais un peu pour aller jouer au basket des fois et puis revenir à la maison sans, que le papa s'en rende compte, etc. Mais quand même, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais allier les deux. C'est tout simplement d'être organisé. C'est dire que j'aime le basket et aussi les études sont une obligation. Mmh. C'est ça. après le bac, quand je pars à l'université aussi, c'est cette option-là que j'ai que, que, que prise. C'est-à-dire, j'ai au basket, en même temps, faire mes études. Et Alhamdulillah, voilà, avec l'aide de mes parents, et puis voilà, ça s'est bien passé. Voilà, c'est pas un miracle. Et quand même, c'est l'occasion quand de dire aux parents que voilà, c'est des choses possibles. Très bien. Mais justement... mettre, mettre, mettre vos enfants dans l'environnement permettre quand même de pouvoir faire les études et, le sport. Mhm. Parce que c'est deux choses qui vont de pair. Alors, vous avez évoqué le rôle des parents, c'est-à-dire qu'ils euh, mettent euh, les enfants dans cet environnement, mhm. mais aussi il y a la volonté aussi des jeunes qu'on voit souvent qui mettent en rade les études volontairement. Oui, oui euh, il y a ça aussi. Qu'est-ce que vous leur dites oui, mais je, le leur dis tout simplement qu'ils sont en train de, faire une, une erreur. Monumentale. Parce que, parce que tous les jeunes ne peuvent pas être comme euh, Michael Jordan. Mm. Sur 100 jeunes aujourd'hui, tu fais un sondage sur 100 jeunes qui, voilà, qui, qui commencent à jouer au basket. Au finish, 10 ans après, tu verras que deux qui seront professionnels. Très Les autres, 70 à 80%, voilà, on connaît les études, d'autres, Le basket, le sport ne peut pas être une option, une première option, c'est pas possible. Parce que le sport, comme on dit en probabilité, c'est quelque chose, le sport a une marche aléatoire. Mm-hmm. Le sport est aléatoire. Parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, tu peux être un, jour bien, voilà, bien important, mais demain, tu fais, tu as une entorse, bien rupture des ligaments, mais c'est fini pour toi. Donc, le sport, elle à toi. Aujourd'hui, euh, vous avez euh, décidé de vous retirer de l'équipe nationale mhm. tout en restant dans le championnat local. Euh, bon, dans quelques temps, vous n'aurez plus le temps de peut-être jouer même dans ce <laughs> championnat local. Absolument. Est-ce que euh, Mohamed Job a l'ambition d'être, de se retrouver un jour sur un banc d'une équipe. Le coaching, est-ce que ça vous intéresse <laughs> Bon, je ne sais pas encore, parce que de toute façon, j'ai eu à faire en 2009, 2009 ou 2010, mais tu, parles de premier degré. J'ai fait, mon premier degré en, 2009. Ah ouais D'entraîneur. Mais ce n'est pas autant que je serai entraîneur, je ne sais pas ce, ce que la vie me réserve. Mais l'essentiel, c'est quand même j'ai une expérience sur le plan national, sur le plan international. Maintenant, par rapport à mes engagements, sur le plan professionnel, Peut-être si j'ai quand même euh, une plage horaire qui me permet de pouvoir venir aider les jeunes dans les centres de basket ou bien être un coach. peut-être peut c'est possible. Si, si j'ai pas aussi cette chance là, j'ai laissé le soin à d'autres quand hein, de, le faire. Justement, si vous n'êtes pas sur un banc, euh, avec euh, cette passion que vous avez pour euh, la discipline, mhm. est-ce que vous, vous, vous voyez un jour tourner carrément le dos à, à la sphère de la balle orange Oui, en fait, le, tu sais, en fait, le, basket d'abord, c'est une passion. Hein. Mm. passion. Donc, il y a l'amour, en fait, de cette... Euh, je ne sais pas, parce que voilà la manière dont je vois des fois que les gens s'organisent autour du sport, mhm. des fois, mm, ça n'encourage pas. parce que je ne vois pas les choses évoluer quand même à ah. grands pas. Moi, j'aimerais quand même que notre sport, notre basket puisse évoluer. Ah, il faut apporter votre contribution. Voilà, voilà, c'est ça en fait. Moi, de toute façon, je suis là, je suis un Sénégalais, je suis un patriote, je suis le moyen national. Aujourd'hui, si on m'appelle pour, pour, une tâche nationale ou bien pour, mettre, pour une réflexion lié au, basket, mais ce serait avec plaisir. Parce que j'aurais aimé quand même voir d'ici. Parce qu'actuellement, on est en train de construire une salle de basket. Mhm. Le président de la République a quand même euh, euh, euh, fait une pause de la plénière pour construire une salle de basket. Mhm. Mais cette salle-là, vous voyez, c'est une salle qui a été construite sur des fonds publics. Absolument. Actuellement, mais on doit évoluer vers un partenariat public-privé. public-privé. Aujourd'hui, on, on peut avoir un sponsor un sponsor pouvait avoir la possibilité de construire une salle de basket. Absolument. Ça, c'est un partenariat public-privé. Parce que de plus en plus dans les investissements, on parle de partenaires public-privé. les pouvoirs publics ne, sont pas, ne peuvent pas tout faire. on, est dans un pays en développement. Mm on, il existe une tension entre les ressources qui sont limitées et les besoins illimités. Donc, on, euh, donc, on doit quand même tendre davantage de partenariats avec le secteur privé. Mhm. C'est ceci qui permet quand même à nos sports de pouvoir évoluer. Parce que le sport actuellement, le sport de nos jours, est ce qu'on appelle le sport business. Mhm. Le sport est un élément de la croissance économique. Donc, actuellement, pour que aussi notre sport puisse contribuer à notre croissance économique, il faut qu'on que les gens puissent aller quand même à, de l'avant, qu'on passe de telle sorte que les, les, privés puissent s'intéresser, puissent, puissent pouvoir, venir s'intéresser à nos sports. Mhm. C'est important. Alors, euh, nous sommes à la fin de cet entretien mhm. que nous avons vraiment eu l'honneur de faire avec vous. Mhm. Alors, euh, comment est-ce que vous appréciez euh, une, une, émission pareille, les 26 rebonds, qui traite du basket. Carrément. Et puis voilà, comment est-ce que vous appréciez ouais, mais, de mais, mais ça, ça, quand même, c'est une, une, initiative à, à, saluer, une très bonne initiative. Mhm. Parce que ça permet déjà, euh, déjà lors des matchs, on, a la possibilité de vacances, quand on ne part pas au stade, de pouvoir suivre, les matchs en direct à, travers votre, télévision. Donc quand même, euh, je, vous encourage, hein. c'est un message d'encouragement que je vous adresse. Aussi, euh, euh, c'est important quand même de, de pouvoir qu'on puisse véhiculer notre, passion, le basket, le sport. Donc c'est à travers la presse c'est une composante aussi, comme je dirais aussi, les, les, droits de transmission, les sponsoring, tout ça euh, sont des composantes du, monde, du monde du sport. Uh-huh. Aussi, sans ça, sans vous, on peut pas, les gens ne peuvent pas aller de l'avant. On ne peut pas, jouer au basket sans, euh, au sans autant qu'il y ait la présence de la presse, télévision, la Ça permet quand même une visibilité. Très bien. Visibilité. Mhm. C'est cette visibilité-là qui, quand même, qui peut inciter un jour au privé de pouvoir intégrer Absolument. ils ont besoin quand même. Donc, euh, donc je pense que, je pense que donc, votre initiative est louable, hein? Mhm. je vous encourage par rapport à, cela. Mhm. cela. Ok, en tout cas, euh, nous vous disons merci. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Hein. Euh, c'est moi qui merci de C'est moi qui vous remercie. Hein. Vraiment, c'est un plaisir quand même de discuter avec, avec, toi. Donc, euh, certainement, on a l'occasion de, se, de, de, de se reparler, euh, Inch'Allah. Très bien. À bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Chers amis des 26 rebonds, c'est la fin euh, de ce numéro que nous avions l'honneur de faire ici euh, à Wakam. Juste derrière moi, nous avons l'équipe féminine de Wakam. C'est juste pour vous signaler que prochaine fois, nous allons revenir ici et cette fois-ci, c'est pour euh, faire un peu la découverte de ce centre, de ce club de Wakam qui a deux équipes une équipe masculine et une équipe féminine, mais également des équipes de la petite catégorie. je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.

ci kuréelu baykat yi tam yore eh, kuréel bi ñuy woowee force paysan waaye tamit eh, nekkoon jàngalekat aussi waaye tam di woon syndicaliste tam aussi ndaka noonu tamit mm, yëngu na ci wàllum diplomatie ginnaaw ay at yu sakan yu def ca ministère bi dañ ko àll bitim réew ci biir Sénégal mooy sunu gan ñu war waxtaanee réew mi tolluwaay bi ak yëngu-yëngu yi sëñ bi ja maa ngi bu baax. Euh, maa ngi sant yàlla buur bu tedd bi di julli ci yonent bi salaahu sallam di la nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñooy ñiy seetaan télévision bi ci biir réew mi ak ci bitim réew mi waaye di jagleel nuyoo baykat yi sàmmkat yi ak nappkat yi. jagleel nuyoo baykat sàmmkat nappkat day firnde am na cër bu nar a waxtaanee ak ñoom tey ci réew mi waaye d'abord sànq bi may tàmbali waxtaan wi gis nga ni ma la présenté tuuti euh, looy dollu ci présentation bi kan mooy Aliou ja ngir Sénégal yi gën a xam tuuti ki nu jàkkaarloo tey ci waxtaan wi mooy kan. xanaa ne li ma cay dolli rek mooy Aliou Dia jolof jolof ndax jolof moom mooy ndey réew mi. nga nekk aussi meeru mbëlëxe. yàlla dogal it ma nekk meeru mbëlëxe. Mhm. jolof boo ko tuddee ci senegal rek tudd nga ñëpp. Mhm. ndax fële ñëpp baawoo. boo seetee ci wàllu diine nga jàpp ne maam sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu. Mhm. maam Mor Anta Sali ma ko meññ ma nga jógee Mbàkke Baari di jolof. maam Maaram mi nga xam ne moom meññ ñi sant Mbàkke sant si ma nga Mbàkke jolof. nga seet Seydi Aji Malick si radiyallaahu taala anhu. maam Ousmane mi nga xam ne moo ko meññi maam Ousmane si tafsir démb bu naa ko meññi ma nga jógee ci Siin Jolof nga jël hmm. tey cheikhul islam Ibrahima Niass waay juram mooy maam Abdoulaye Niass maam Abdoulaye Niass nga jógee ca Jolof ca mbëlëx hmm. bu cheikhul islam euh, Ibrahima Niass euh, waay juram wu jigéen ñu di ko wax maam Asta Jànka mbëlëx lañ ko jëlee dem joxe ko maam Abdoulaye Niass fa tabaarakallahu man alaaji daawuda jàm mi nga xam ne ku tudd sénégal tudd tariqa tijaani yi tudd seydi aji malik dégg ko mhm. moo nekkoon mbëlëxe yàlla jagleel ma nag tey may meeru mbëlëxe lool kon day firndeel ni sax ci waxtaan bi euh, ku xaw a gëstu histoire senegal nga ndax ni nga maîtriser jolof ak la ci aju ndax tam kon ni nga càmbare jolof ba indi mboq geeg kilifay diine ci biir sénégal boo doon defum natt tey ci sénégal indépendance boobaak léegi cinquante cinq yi indépendance li fi aw ci njiitum réew li ko tàmbalee ci président Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci tey président Macky Sall tey euh, noo gisee Sénégal tolluwaay bi dafa mel ni réew yi moom am na fu mu toll ci jafe-jafe xëy noo gisee. waaw xanaa di wax ne rek nañ sant yàlla ndax euh, boo nattee fa ñu bàyyi ko jafe-jafe yu bari la bu ñuy dox jamono di doxit ngay gis Sénégal ba ñu toll fii nu toll su ko wax mag ñi ne leen tey jamono neexut danañ leen kon nun ñi nga xam ne ñoo daje jamono jooju buñ ko bëggee natt ci ne neexul rek day mel dañu xarab yàlla damay déglu sunu benn kilifa benn wayjur sëñ Abdou Lahad Mbacké yàlla yàlla yokk leeram ci fan yii mu waxtaan wu yàgg wu mu doon def ca Touba mu dem ba yàgg mu ne ah ñu gis tey nag ba natt ne euh, jafe-jafe amutoon démb mhm. jafe-jafe ak gon na ci mag ñi jàpp gone yi taataan ndox mi pour naan ndax ndox mu banki Jigen di sebati neena talibe yi wala xale yi dik taxaw nan ko may ñu ci sabat mi ngi naan mu naan len du ma leen jox lepp nak dama ci bay luma ma wëggee samay xar mhm. so toge bu guddii bo daan gis neena lu leer da ngay daw defene da nga jommi tay fu fekke lampu yaagi tak fepp ndox maa ngi baawaan fépp mhm. gi fa tabarakallah yombuna am ciol gis nga ni mel ci jamono xey bi lu mu jafé jafé itam bu ñennatul xëyut ñu bari itam am na ñuy nañ ko def ak sante yalla waye nak bu tax ñu ne doyna mhm. ndax nañu nat suñ bop ak ñan départ ndoo woon ca affaire euh, indépendance. foofu sax moo tax may wax. bu boobaa yi nag dañu xool ne am na ñu nu raw. dañ ñoo raw lu bëri nag. ñoo ñu raw nag nañ seet nan la la tax ñu raw ñu. ak nu hmm. ñuy def nag ba dab leen waxumaa ñu dab leen mais ñu romb leen. Hmm. ñenu yilifoon la taxoon nu yilif ñu dañ ñoo njëkkoon a yeewu. waaye gannaaw ñu ngi ne jar de ñoom. Hmm. nu ñuy fexee ba àndandoog ñoom su ko defee nag réew mi moom nañ sant yàlla fi mu toll suñ mag ñi ñaanal leen taxawu nañ ñu teg nañ ñu ci yoon ba réew mi jot boppam Mm-hmm. ñun ñu ko yore nag rikkuwaay buñ fi toog di jàmbat nañ liggéey liggéey defaram réew ay waxi kese du defaram réew ba ca desin nag nu fexe nag ba itam nag jàmm ji mag ñi defoon mm-hmm. ak déggoo gi mag ñi defoon ba indi doole ci réew mi nu suuxat jàmm ji soo ko dégg aw finn ak ak tàqalikoo du indi dara lu du tardé ak jëyee ci biiram réew kon réew mi moom nañ wax ne fii nu toll neex na waaye nañ sant mag ñi te taxaw voilà neex na waaye sànq biir wax nee nga moom nañu xool ñanu départ ndolool jamonoy indépendance ca ñu raw ñu pour yow problème Sénégal lan la dama gis ni bu njëkk ku ma wax mooy la sous-région bi Sénégal la ñu am Sénégal fi dañ jàng seen bari ay njiitu réew xam sax ci Afrique Sénégal la ñu jàng see ba nekk ay kilifam tey Sénégal googu tey dafa mel ni li mu amoon ci njàngam mi ngi ko tàmbalee ñàkk Sénégal la mu nekkoon a jamono capitalu AOF euh, ak na mu nekkoon kilifteef Sénégal mi ngi ko tàmbalee ñàkk euh, ci koom-koom tamit ñu ngi koy ñàkk pour yow lan mooy problème senegal ban tollu fi tey. Euh, def nga gëstu ak jàngat bu wér mooy yal mooy jafe-jafe Sénégal yi fi tudd yëpp ci wàllu koom-koom ci wàllu njàng mi ci wàllu paj ci wàllu. jikko day loo xam ne ku ne war nga ko jàngat te li nga wax it bëri na tey Afrique loo xam ne daanañ ko roy fii lañ ko daan jëlee si mhm. ba bëri na ay président africain yoo xam ne li nga wax fii lañ jàngee ñu formé leen mhm. bokk na ci rek nga seet ne ku mel ni Sékou Touré ko gën mhm. fii la jaaree woon ci poste bi nga jël ku mel ni Houphouët-Boigny ko gënoon a liggéey te gis di waar toll tey fii lañ ko jàngale woon ba mu nekk fi jàngalekat dem takk soxna it bu bokkoon Sénégal nga fii la jaare woon nga gis ku mel ni Mokhtar wul Dada kay boo ko limee xam naa ne ay stage su ma ko doon lim si laay fanaan <laughs> uh-huh. waaye nag booba itam ñun ñuy bàkku rek naan réseau routier bu Sénégal mooy bi gën a am solo ci Afrique de l'Ouest uh-huh. nuy bàkku naan alors ñu ngi ci des ay ñag lañ kenn uh-huh. kuñ ci gis sax ab dafuñ la doon xeebe tey nag boo tëkkalee Sénégal nga dem Côte d'Ivoire nga dem gana nga dem Afrique du Sud réew yoo xam ne yi gën jaar nañ ci guerre jaar ci jafe-jafe yu doy waar da ngay dem ba yàgg nga ne waaw ñun dafa mel ni am na lu téye suñuy tànk li téye suñuy tànk nag. Mhm. lañ war a seet. mooy lan lii problème Sénégal mooy kilifteef fi fii bëgg a jeex kenn nangootut ku la yilif mhm. jàppatuñu te ne nit dafa war a liggéey pour war a mën a jariñu dañoo defe ne ay pexe mooy joxe. Mhm. beneen ba nga xam ne nag moo ci des mooy ci biir pexe yooyu boolewuñ ci njàng. ba tax na tey wërsëgu salaamaaleykum maaleykum salaam am na combat tey quatre-vingts millions. nga gis koo xam ne da rek dund muy liggéey ne un grand cadre mu sa dajale ci enveloppe wala ci banque lu mat quatre vingt millions ñëpp defe ne bëree war a xew nga gis koo xam ne kii def na ne loterie bee mhm. dangay ngay xëy benn bis rek gis waaye ñu ne gënd na kër yóbbu na yaayam màkk ñu ne daa gagné billet mhm. nga defe ne loo am ca nga koy yemale xëy di ramas sa kar sa karaw ruus par benn boo gañee benn di perte junni mhm. loola dem na ba kër yi tas gone yi dem nañ kon ba gëmatuñ jàng mag ñi daanaka boo leen xoolee mag bu def kii dootu digle lu baax te jaamootul yàlla lu dul kaay mu la pexe rek pexe yooyee du dara lu dul pexe njuuñ njaaj mhm. nga dem itam ba gis ne jigéen ñi jàpp nañ ne sëy day tardé léegi rek jigéen mhm. gàddul sa saag nga ne ma nga Dubaay démb aju màkk gi xew na nga ne dem na ma nga ca obraja yaakaar nga ne da ngaa war tey xëy rek yaa say doom ngeen defe ne bu ngeen xëyee dootu leen sikku ci benn bool wër ko ku ne raxasu ñuy añ mhm. déedéet fast food restaurant yooye bu fekkee dem nañ ba àgg ca mooy jukko yi yàqu na nit ñi dañoo yàkkamti seeni wërsëg kañaan di gën boole ci biir senegal yi nit da daan am ñëpp ñaanal ko yàlla na lii sax mhm. loo fi am tey di dimbali nit ñu ne day wutu tur dafa feñaak sàcc rek foofa defa dañ ñëpp tey léegi ci yooyu lañ ne ah. kon nag nañ defaraat jukko yi tey am kilifa gis nga nit bu amul kilifa mhm. dafa mel ni oto bu amuti frein mhm. oto bu amuti frein ñett la menacé benn ca ko koy dawal newut ci sécurité ñaar ca ko dugg ci oto ba newut ci sécurité ñett ka ne yoon wa oto bay jaar amul sécurité voilà ko defee nag kilifteef na dellu si na nit ñi jàng na nit ñi doyloo seen i wërsëg nan wóolonte nañ dindi coxor ci suñ biir ñu jàpp ne bu Sénégal développé ñëpp la développé te kenn ku ne benn diir nga def boo xam ne. Mhm. boo liggéeyee defar nga réew mi soo liggéeyut yàqal nga sa bopp yàqal nga say doom ya lay remplacer ëllëg te bu ëllëg si bi réew mi du mën a àgg mukk tolloog réew yëpp départ woon wala muy dab ñu ko colonisé woon. voilà suñ bi ja li ma laaj ak li nga tudd si problème Sénégal bari na. mais pour yow ak la faute man dama gis ni yéen ñi politique lu jug njàkk yéenay jak ndax yeen lay fal ci bop rew mi ngeen wara doxal bu dem jangalam ngeen wara tabax école yu doy kat di doy bu de ci wàllum yoon yeen ko wara doxal surtout ki ne ci bop rew mi ndax lu ci ep ñi ngi fal politicien la ñu bari gis nañ lolu lan moy deug deug problème Sénégal ak yeen seen cieur bu ma nak du ñun dongo waaw xam nga li nga lay ñëwé da fay wax du man rek. Mhm. bokkuma caa ko gën. Mhm. ba tax na politicien bu yëkkatee loxoom ne du man rek sëriñ ba yëkkati loxoom ne du man rek moo yëkkati loxoom ne du man kañ war a defar ne ah du man rek bu boobaa kenn ku ne da mu mujj di ko sànni sa moroom sa moroom di la ko sànni mu mel ni nag rek léegi xeex ab a xam nga ganaar bu ne xeex kenn du gañe mhm. kii day dàqe kee ba fee daane ko waññeeku kee a dàq ko ba fañ déparé woon mu daane ko ñuy nekk ci coono bu dul jeex ta wolof di wax de gis nga buy taw bo fekke am nga xel jëlut ngay daw doxal ndank te parce que bu fekke da ngay daw mhm. da mhm. mhm. nga toy da nga son waye bo doxé ndank nak bo toy do son situation bi tollu ni tay kon fi nga xamne fi lañ tollu ku ne sa responsabilité natt ko ci bul ne ku la joxañ waaye na tal sa responsabilité politicien bu fekke da nga japp ni politique aw yoon la wooy jaaree pour meuna note ñaga bokk ak jamono wala lañ nga xam ne bokk nga ñëpp yow nga jël ca ba doyal sa yoon nekkul ca ka amul mhm. te itam la ngay wax sàmmoo ci itam na nga yaa ko fi waxoon mhm. sàmmoo ci également yàlla mi la tiim sàmmoo ci itam kala soppoon nga xam ne yow dafa xëy rek topp la di daw mhm. di xiif pour yow nga falu toog xanaa daal da dem ba sa bopp rek la gënal ngay fëgg sa dënn bu boobaa politiciens yi mën nga jàpp ne ñoo fi indi situation bi fi ne ba tax na nag ku nekk bëgg na politique boo xoolee ñu naan Sénégal tey ñetti téeméeri parti waaw te boo xoolee tarixa yi fi nekk nit ñuy jëm ci yàlla day boo leen doon wañu amaguloo fukk wala juróom ji tudd rek daanaka ñu daal ne ah, mm-hmm. daal di egg itam ba ci wàllu tarixa yi ngeen nga xam ne continué nañ ko dootu tarixa yooyu dajale nit pour na diine am doole waaye kër la ñuy kër la samp mm-hmm. kër yooye kan ñu ko fi defoon di mag ñu sell jël seeni doom ñooña sell mhm. ña ca bëgg a bokk te soo yéen mësu ca nekk daanaka ñoo dugg ca biir kër gi tey mhm. indi ci ay pëccëxoo mhm. indi ca ay jafe-jafe indil ko waa kër ga indil ko ndonay kër ga ba daanaka foofu dugg doon fa seeti exemple da ngay mujj naan naa leen xeeb kon li nga xam ne moo xew daal mooy Sénégal nañ delloo si baatu kilifteef buur bi xam ne moom dañ koo fal ne ko nangami at yi kat yaa am droit boo signé ñëpp ànd ca doote da ngay geerlu yaa am droit koo xëy kenn mosu ko woon a xam nga signé rek fal ko ci barab sàngam balaa ngoon rajo yeeg télé yi ne di woo falu mu siiw aw turam yokku yaa man itam ki sa doole jooju nga xëy ko amoon doole ci ndomboy tànkam nga xëy wàcce ko waaye rikk bu ko xeexee rikk bu ko toraxale nit su ko defee buur booba nag bu ne hee ñu déglu ko bu ne toog leen ñu xam ne da koo teg ci dëgg nit ñu toog waaye bu ne jóg leen nit ñëpp àndandoonu jóg kilifteef taxaw suñ ko joxee kilifa diine yi politiciens yi itam jàpp ne dum ay pexé pour yéeg ci ngor ga waaye and ak nit ñi ba programme bi nit ñi rafetlu japp de suñu ma ak man yobbu ko ci ko dana jëme réew mi ci kanam dana défar suñu dundu ñu sàmmoog loola suñ ko défé lu way wax na ca kenn ku ci nekk itam sa bop bu mu la gënal nit ñi kenn ku ci nekk itam réew mi gënal la sa bop gënal la nit ñi mhm. suñ ca démé Sénégal dana toll fa ko mag ñe yaakaaroon te itam danañ am jàmm sëñ Aliou Dia ndaxam kon président Macky Sall ndax bi may tàmbali dama tàmbalee ci Senghor moo fi nekk tey ñeenti at ci bopp réewum Sénégal noo gisee liggéeyam ndax moom jàpp nga ni ak moom njàngum Sénégal lañu amoon bu njëkk dana mën a ñëwaat ndax aw na yoon wa ndax gis nga ni li nga wax naan euh, na la sa maanaam réew mi gënal sa bopp te mu waxoon ko ni la patrie avant le parti yooyu yëpp ndax tey président Macky Sall mi nga xamoon ca tey nga nekk ci wetam ni ma ko mën a waxee ci wàllum politique donte yaa am sa parti bopp noo gisee ñeenti atam ak doxinam ci bopp réewum Sénégal. waaw xanaa di wax rek de buur bu nekk ak lay sa sens ci sa nguur. Hmm. gis nga ko yàlla mu dikk ay sëriñ la am doole ci réew mi gannaaw bi fi buur yi jógee ba mu ñëwee bokkut ak ñoom diine waaye bokk naa ak ñoom gëm na yàllaa ngi fi. Hmm. réew mi dañ ko defar ñooña xam fi nek te mooy fal ñu ànd ak moom mu fal. de dina fi waaye bi mu fi jógee ba ne fi réew moo xam ne mii nit ñi gëm nañ seen bopp gëm nañu njàng gëm nañ culture réew bi gëm nañu liggéey mu def fi donc une nation unie benn peuple boo xam ne ñun ñëpp ñoo bokkoon benn objectif benn but mooy na senegal jëm kanam ba fu mu dem ñu naw ko bu ñu yem sax ki defar senegal waaye dañoo wànn àndandoo tabax Afrique Afrique googu mën a feeñ ëllëg ànd ak seen continent yi Senghor jóge fi Abdou Diouf ñëw Abdou Diouf tey boo doon wax da nga naan wax na lu ñuy tuddee une administration moderne fexe woon nañ daal ba bu gouverneur génnee ñu xam ne kee gouverneur la. bu mhm. waxee ñu déglu ko. bu préfet génnee ñu xam ne kee préfet la bu waxee ñu déglu ko bu sous préfet génnee bu waxee ñu xam ne sous préfet la ñu déglu ko. Mhm. ñu doon leen tànn ci tànn bu mucc ayib ñu nekkoon les bras séculiers de l' état. Mhm. maanaam ñoom la nguur gi doon wéeru ku xañ sa dëgg ñu delloo la ko. koo xam ne kii jël nga yëfi jàmbur ñu ne teg ko ci yoon suñu waxee ñu xam ne loi loi moo dikk ñu doon leen formé bañ ñor. Mhm. administration boobu Abdou Diouf jógee fi Ablaye Wade ñëw bi Ablaye Wade ñëwee dafa dal di gis ne addina bi dañoo wax ne léegi benn néeg la lu yendu fii fanaani na fee koom-koom bi nag moo daanaka yore lépp léegi ndax ku yoratul danga delluwaat ci njaam. mu teg ay yoon yoo xam ne yi wanoon na nit ñi ne lii buñ ci continuer ci wàllu koom-koom Sénégal dana dox mhm. France rek lañ joxoñoon defe ne mooy partenaire moom lañ war a ànd ak mu wàcce leen fi dem ànd ak chinois yi ànd ak indien yi dugg Asie ba gis nga réew mi ak ñoom Iran soppi na ko wax dëgg yàlla ci wàllu doxali ci wàllu fooy jaar dem mhm. soppi na ko ci ay fajukaay soppi na ko également ci école yi niy jàngi boo xoolee dem ci tey dëkk yi gën a kawe nga fay fekk mhm. alors que am nay jamono ku jàngee jiwut feder ba jàngee jiwuloo de la force mhm. jàngee wuloo Malick si Thiès ña ca ëpp seen dëkk yi seen département yi amul lycée mhm. mais bu Ablaye di ñëwee gis nañ na ci wàllu yoon xam na ne duñ développé te surtout xottiwul yoon yi yokk na fajukaay yi yokk na jàngukaay yi salaire yi nit ñi amoon itam mu fexe ba yëkkati woon ko ba nit war a mën a yaakaar ne su ma liggéeyee danaa ci jëriñu ñu bay ay pexe dugg ci liggéey yooyu mhm. waaye bi nga kor kooku foofu dañ ko fi delloo njukkal président Macky Sall bi mu ñëwee yaakaar bi nga xam ne moom lay nit ñi gën a am mooy méngook jamono dana ko def ndax dafa judd après indépendance. Mhm. te lañ doon wax nit ñi naan leen bu fi dégol déegol nekkee gone yi boo leen wax waxi dégol léegi boo muy da ngay wax ba jeexal ñu ne la waaw dégol mooy kan xamuñu dégol. Mhm. philosophie dégol gëmuñu ko nañ weddee Marx weddee ko Engels weddee ko Mao la gone yi bañ a dégloote kii kenn liiratul seen livre. Mhm. su ko defee nag moom comme dafa judd après indépendance xale yi jàpp ne dana méngoo ak jamono. am nañ ci yaakaar nag ndax bi mu ñëwee taxawul rek ne lii la fi Senghor defoon lii la fi Abdou Diouf defoon lii la Wade defoon daf ne damay indi plan euh, Sénégal émergent plan Sénégal émergent booba mu indi ci ay projet mu tënk ko wane na ci wàllu courant bëgg naa ñëpp jot ci mhm. te kat réew bi soxla nañ ko de mhm. Sénégal gii ngay gis foo xam ne fii gën danoo am ba deseetuñ ko dara hôpitaux yaa ngi leen wër tali ne gàññ ndox maa ngi leen topp sandarma ak alkaati ay police ak brigade dafa nekk seen quartier yu nekk sécurité. Mhm. nga dem foo xam ne bañ juddoo ba léegi gisaguñ ko tub làmp. foofa luy nuroo xeer wu xonq ñu di ko wax rang bañ gisaguñ ko. Mhm. yàlla tere nag seen jur ga ñuy sàmb sàmm. guddi gu jot ñu rey ci nit baa ñu sàcc ko gisuñu alkaati gisuñu gendarme ñooñu su fekkee ne da leen bëgg a yemale ne Sénégal ñëpp a yem ñooñu ñoom jàpp nañ ne ñaari Sénégal fi te fi lépp ne gàññ ak fi dar amul. Mhm. IPS xotti ko mu dem ba ca àll ba sampaat forage yi ca àll ba ba ñëpp jot ci di naan ndox mu sell ndox ma doy fexe également ba courant ba dem kenn ku ne am nga ci yaakaar biir ñeenti at yi nag gis nañ ne am na ñaar yu gàllankoor Sénégal. mooy. ba ca njëkk mooy njàngale mi njàngale moomu nag bu fi Senghor di jógee ba ba yónn na fi ay gàllankoor waaye jàngalekat yi boobu dafa amoon nag foo xam ne duñ fa àgg wala duñ ko weesu. Mhm. mooy bi Senghor nekkee waaye syndicat yi itam ak tollutoon nii mhm. léeg-léeg ñu weddi sengoor ba boo ko xoolee Senghor dafa jàppoon ne bloc des opposants jàngalekat yi la nekkoon la ci ëpp c'était des hommes de gauche mhm. yàlla dogal nag mu masla ak ñoom ba 74 bi muy indi multipartisme nga gis ñoom Cheikh Anta Diop wax bay xëm fi ñu doon waxee ci université bi Senghor dafa waree woon ne réew mi ñoo ko bokk dañ waxtaan mu def dialogue mhm. def waxtaan indi jàmm waaye njàngale moomu amoon na problème waaye xamoon na nuñ ko gérer bi nga xamee ne Abdou Diouf ñëw rappelé wul jafe-jafe yi gënoon a am ci njàngale mi àggoon na ci bañ dàq fi ay syndicaliste dañ may baal ma tudd ci ay nit. Mhm. ñoom Samba Julde di sama xarit actuel député. Mhm. fekkoon na ñi gënoon a puissant lañ bokkoon ci nu mu tuddatee ñoom moom Mamadou Ndoye. Mhm. jàngalekat yi demoon donc ba jafe-jafe yu bëri Abdou Diouf àggoon na ci ba ñu dàq ay jàngalekat ay syndicaliste ñu dem ba ne nan lañ mën a def ba déggoo ñu woote les états généraux de l' éducation nationale. wutaloon ay solution ak i xàll. kon jàngalekat yi demoon nañ booba it ba xam seeni responsabilité ñu dellu si waat refondé waat njàngam Sénégal ndax toll day jamono dama lay wax ne la foo génn ci àddina ñu ne Sénégal nga amee bac dañ lay yóornduwaat mhm. étudiant sénégalais fu mu amee bac bëgg a dem feneen préinscription daawu ko jafe maa ngi lay jox benn anecdote bi ma nekkee chancelier au consulat général bi Sénégal à Casablanca mhm. bu école daan waaj a tijji étudiant marocain yi nga xam ne am nañ bac dañ daan rànk sama bureau bi pour lan ñu mën a am bourse pour dikk faculté de médecine bu Dakar parce que dañ naan la faculté de médecine bu Dakar ku fa xas ba jàngee foo dem doo chômer te da ngay nekk un grand cadre. waaye léegi su loolu demee ñu dikk ba fii nu toll Sénégal université grève guddeeg bëccëg CM de proximité yi grève guddeeg bëccëg secondaire bi kenn mënatu koo gérer nga ñëw élémentaire ba tey bët bu set ñu ne débrayage gis nga ka jàngu tubaab tey si Sénégal bokk na ci woo vocabulaire bi bokk ci moom danaan la waaw lan mooy débrayage. maanaam xanaa xëy na suba dañuy wekki duñ jàngale loolu nag tant que dindi wuñ ko mhm. du sotti man jàngale naa fukki at mais dama ci duggoon par vocation dama ci duggoon mu nekk sama vocation mhm. ma def concours def formation formation ba jeex ma pratiquement ma def stage rural pare ñu affecté ma ma mhm. jàpp ni ñii may jàngal samay naw léegi bëgguma ëllëg ñu màgg jéppi ma mbaa ñu xeeb ma dama leen bëgg a jox lu ëpp li ma xamoon ba buñ fi jógee ëllëg li ma tolloo woon nag mooy fexe ba jàngal ñoo xam ne danañ mën a taawu réew mi ma jox leen ko maa ngi sant yàlla ndax gore ya ma doon jàngal ku ci newul journaliste maa nga nekk infirmier maa nga nekk tey leneen mhm. ku njëkk a dajak man la nga may njëkk a wax monsieur Dia merci voilà jàngalekat yi xam ne merci monsieur Dia tànn métier moo xam ne mhm. xaalis amu ci lañ daan wax waxuma nag na nañ leen noon mhm. nañ revaloriser la fonction enseignante seen autorité ñu restaurer ko jox leen moyens yoo xam ne yii itam nag danañ war a mën a taxaw waaye dafa am foofu bu ñu toppante warul jàngalekat bi ba mu sës. parce que dana sacrifier ay génération yoo xam ne kenn dootu leen mën a defaraat. justement réew mi kon loolu rek. mooy problème bi si waat ambulance mooy catal Sénégal tey li ma bëgg nag ministre de la santé xam suma ma xarit la waaye dama gis ne dafa mel ni ay universitaire ak wër di ko jox ay chiffres yoo xam ne taux yoo xam ne ñuy defar président ay rapport yoo xam ne. Mm-hmm. nun ñu nekk ci àll bi léegi di ko pratiquer. munoo dem ci àll bi tey gis ambulance amul plateau technique yi dafa gën a wàcc médecins yi ñëpp a ngi buuxante biir ndakaaru te surtout li ñu tuddee xarmat bu njëkk li ñu doon wax travail noir mm. soo ko defee ñu jàpp la nga gis tey benn médecin ñi la mi ngi ci juróomi hôpitaux mi ngi ci ñetti hôpitaux benn infirmier nekk ci ñetti hôpitaux jël ay malaat fa nga leen di fajee di leen yebal ci ay clinique dama defe ne loolu su fekkee dañ ko seetaan mu continuer mm-hmm. musiba naaru laay lay doon ok te ku ne nit ñaa ngi feebar di faju yaa ngi nax sa bopp àll bi ay ëpp yàlla ñuy jël di ci dugal nit ñi di leen jaget jagetee dañ delloo ambulance yi ci àll bi yóbbu infirmier yi yóbbu ay sage-femme recruter médecins yi fi nekk di chômer waaye suñ ko defut defari rapport rek séminaire guddi séminaire bëccëg ne ci avion yi banque mooy distribuer ay sànke sànke ku ku suuree ca mën a tëdd. ok sëñ bi Dia waxtaan day wéy. yaa ngi nekkoon ci mbirum njàng mi ak njàngale mi ci ko topp jamono jii. may wax ni barki dem rek senegal don dalu am dajem jongante bu reuy ci Afrique ci walum philosophie senegal da daanaka momi ko def sax dafa jël ndade ci wax naa sàngal bu njëkk Sénégal moo nekkoon bérébu jàngukaay kon senegal dafa mel legi jangal na ay nit ñenu jangalon jangal seen ay dom ba seen dom ñu senegal raw suñu dom lolu mu mel ciagante amna ndax amo kersa sax bi nga déggee ni senegal jël na rang bobu d'abord ak jangat bo ci am ci senegal ni niveau bi wacc depuis des années amna ci kersa lol en tant que père de famille en tant que responsable mais en tant que kat mhm. mais betuma ku mhm. jang du tari gis nga xalé yi du daño amu ci xel xalé yi du daño bëggut a baax mais dañu leen teggut ci condition yo xamné tay war nañu bu nu raw philosophie be fej rek mhm. mais fene ni non la mel yow sa doobu bop ji léegi bu bindé ba paré da ngay xol muy def ay gribouillage da ngay xam ne kii jàng luñ ko bind sa doomu bopp ji bu ngeen toogee nga di ko làkki tubaab yow dafa mel ni ay booy wax da ngay léeb parce que du la dégg c'est parce que ku koy jàngal sax li ci ëpp moom ndax tubaab yow muy làkk tege da ciw yoon loola nag manque de formation boobu nga xam ne dafa feeñ ci façon bi ñuy recruter léegi enseignants yi à tous les niveaux dafa feeñ ci njàngum gone yi donc faw Sénégal système bam bii muy jàngalee ca université ya ba ci suuf danañ ko seetaat Sénégal ngay toog léegi yow man nga toog ba école di bëgg a tëj nga gis ko amoon bac ñëw nga ne ko ah tëjagu leen mu ne man kay orienté guñ ma. Mhm. mais loolu léegi lañ ko gis ñun. Mhm. nga mujj ñu mën a la ci privé lañ ma yóbbu. privé booba mu dem ngay toog ay fan nga ne ñoom ñu leen gis nga noonu privé bay xoolee xaalis booba di ko nattee ci njàngam étudiant bi. Mhm. moom nga koy gisee léegi ca wàllu paj ma ñu di ko ca nattee. loola ay jafe-jafe la faw nag su système scolaire bi ñu seetaat ko et mhm. universitaire jàngalekat yi nañ leen di recruter ñu seetaat ko